aouzu billahi minash sheytaani rajim Bismillahirrahmanirrahim. gannaaw buñu santé Yalla bur bi subhanahu wa taala julli ci yonenti bi alayhi wa salam sante Serigne Touba Cheikh Ahmadul Khadim di ñongi nuyu mbokk jullit yépp mbokk talib yépp di ndigal lu ko ci Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Muntaha Mbacké diko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol tamay ko wër. Wacc ci suñu jëwriñ di Serigne Cheikh mom kon ñu déglu kàddu yi nga xam ne moo bàyyi ko ci sëriñ bi jëm ci mbokk jullit yi ak mbokk taalibe yi wàcc ci sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou Latif kon ñu jox ko kàddu gi ñu déglu ko bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ak cantam ak leen daan wax rek سرين منطقة دي خمنا بباخ باخ تفعل جي بيرني في أمي جمام تفعل غو رمنا تالبي باقي جولي يب رم جولي يب باقي جولي بسانة غالي أجنو تجولي صح خمنا إن أمنا جمام تفعل تدين كوي وخ دين جوك دي فينيو وهي مامتم لولي دا غوي دلو دا يوخاني تفعل جي أمنا لغو نيب تالبي باقي جولي يب باقي جولي يب باقي جولي يب باقي جولي يب باقي جولي يب باقي جولي يب باقي جولي يب باقي جولي يب باقي جولي يب باقي جولي يب باقي am na ko lislaam santaane sëñ bi mi ngi nuyu ñëpp di xamal ne cofeel gi ak jéego yi ak yitte xam na ko bu baax a jàll lépp fu ñu ci mës a toll tollu ngeen fa moom fu mu fi nekk ci liggéey bi ànd ak moom ci liggéey ba te loolu la ñuy dox ba fi mu ne ba bisu tey ji naa ne bi mu fi jóge dem Poroxaan waxoon na yónnee woon na ay kàddu ngir ñu tàggu leen yoo ne nañ taxawal daayira yi bañ tere dem boroxaan ba ñëw dem nañ ba ñëw ak jàmm ci alhamdulilah rabbil alamina kon mi ngi sant yàlla bu baax di sant sëñ sëñ Tuubaa bu baax di sant bokk yi ñëwoon boroxaan ñëpp di ñaan ñëpp jële fa ngërëmal sëriñ bi ak barkeb soxna jaara na fa toppe ñëpp waaye moo xam ne nag kon bi mu ñu bébisee ba noppi it da ci dolli war rek gannaaw cant gi ay kàddu yu néew ngir xam le ne bëgg na ñu mayaat ko tuuti rek mu wéyal noppalu bi ak dal gi ndax xam nañ ne kenn ku ne xam ne fii atam toll ak fi fi jamonom toll kon daa bëggoon ñu mayaat ko ab diir diiru weer ba noppalu coono poroxaan yi ak bagante bi mu door a tàmbaliwaat liggéey bi ndax moom ni mu koy waxee rek liggéey benn fi bàyyi liggéey bi sëñ bi rek mooy mooy suñu yitte feeg feeg mu fi nekk dañ ko ñaanal mu yàgg bi te wér te di ko man nee na fekk mu defee ne di ko man liggéey bi rek mooy yitteem kon ñëpp dañ ko ñaanal ak nekk fi ak ko man ko ba ban man naa moom ànd ak moom liggéey bi waaye nag ñu may ko rek diir bu gàtt boobu mu ñaan diir bu weer rek ba ba nga xam ne bu génnee koor gi li des du bari mu mën a ñu mën a waajal koor gi mën a tàmbaliwaat liggéey bi mën a saafante mbokki talib yëpp ak mbokki julit yëpp ak mbokki réew mi yëpp bu ko defé nak buñ duggee ci koor gi itam lay programme koor ga mu wat ko waye li ñaan ci digënté bi dal moy lam ñaanoon ba mi da waji dem proxan ci ñu may daayira yi may ko mu dem proxan bu ñew lool lay sante ci dem na proxan bu ñew di waxa ñaanat ñu mayal ko ab diir diiru weer rek dana fekk baraxlu wa sori fekk itam euh, koor gi jege ñu mën a tàmbaliwaat liggéey bi loolu daal mooy kàddu yi nga xam ne moom la waxoon na ko jot ñëpp ku ko dégg na ko jottale moromam na sëñ bi nee na ñu may ko diiru weer kon fi mu ne nekk nii ñu ngi toll ci weeru janvier bi di dee kon nuñ ko may weeru février bi ñu mayal ko ba mu dee buñ buñ duggee rek ci weeru weeru mars wa bu waxee nag kañ lay tàmbali liggéey bi dese nañ ko waxee bu ngeen dégg ko incha allahu yàlla na jàmm te mu yàgg fi te wér nekk fi te wér ah nag moom liggéey bi nekk ci gannaawam lu mu jàpp nu jàppale ko ca ba am ci nam am ci ngërëmul sëñ bi jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa jërëjëf mbokk julli yi mbokk taalibe kon ñoo ko déggandoo kàddu yooyu moo bàyyi ko ci sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di ko ñaanu suñ borom yàggal fa loolu te may ko wér mu wàcc suñu jëwriñ ji toog di sëriñ Cheikh Mbacké moom sëriñ bu Latif ngir mu leeral ko mbokk jullit ak mbokk taalibe yëpp kon ñoo ko déggandoo kon nañ ko bàyyi xel